xamante ne nii waa ARTP ñoom ñoo ko génne woon doon ci wax nag ni fii ci Sénégal dañoo nemmeeku ni bëri na lool sooxee ci wàllu réseau ñu ne ndakaaru rek la réseau bi tane yeneen fukki région ak ñett yi amu ci benn boo xamante ni nii réseau bi jag na foofee ginnaaw bi nag ci la ñu yónnee communiqué wane daan yi nga xam ne nee nañu teg nañ ko ci kaw Sonatel fukki milliards ak juróom-benn la ñu wax ñaari milliards ñu daan ko waa Saga Africa ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo moom Free ñii waa Expresso itam daan nañ leen benn milliard muy loo xam ne nag euh, ARTP moo ko teg ci seen kaw ndax réseau bi dañuy rocc xaalisu nit ñi ci li ñuy wooteeg li ñuy connecté woo te duñu ci delloo dara léeg-léeg nga jënd ba pare du mën a dem ARTP nag teg boobu jéego tey jii. mu taxoon sax euh, ñu sàkkoon ca sunu ndaw la ñu toogal foofee ca Kédougou mu xool ñoom nan la ñuy sàkke pexe ndax mënuñoo woote mu jàll mënuñoo connecté wu connexion bu baax 4G 3G sax léeg-léeg du fa am am ci nag euh, ñi nga xam ne ñoo gën a sori rawatina ca Salémata ak euh, Saraya foofee ñu ci ëpp piis yi Mali la ñuy jënd def ci seeni téléphone Ibrahima Jabaxate da ngay wekk portable bi ci kaw garab yi wala parfois nga yéeg ci kaw garab yi pour mun a am réseau benn ci jafe-jafe la askan wi jànkonteel fële ci commune bu Missirah Sirimana bu ñu bëggee jokk ak seen i mbokk bëri nañu ñuy jëfandikoo réseau malien bi Fili Soumaré habitant la fële ci Missirah Sirimana mais boo génnee Saraya nga dem ci yi foofu daal réseau amul surtout boo demee ci frontière yi foofu réseau malien yu fa bari wër réseau bi ci kaw ay garab wala ci kaw ay bâtiment moom la askan wi di jànkonteel fale ci ci commune bu Salémata Kamisa Camara mooy maire bu commune bu Salémata Salémata rek yëg ci ay montagne wala nga yëg ci benn garab waaye ngay dem di lijjante point am pour nga am téléphone nest pas pour nga mun a téléphoner tey tey ji ñu nekk ne au vingt et unième siècle très franchement Salémata na nga pas un kilomètre cinq cent mètres foofu mënoo fa am réseau c'est pas jafe-jafe connexion la ñuy jànkoonteel say bu ñu yónnee seen i élément Amadou Diop mooy correspondant régional Soleil bu fii ci diwaanu Kédougou. lu jëm suñu liggéey ñun journaliste pour ñu mun a am réseau surtout pour envoyer suñu élément si yeneen gox yi affaire bu jafe la doo fa am réseau sax ma la ay 2G 3G da ngay bëgg télécharger say photo wala say audio wala say vidéo pour mun koo yónni doo ko mun a def parce que doo am réseau téléphonique. bu ñu seetloo région bu Kédougou ni mu sësee ci ñaari frontière ak Mali war nañu yokk bu baax a baax téléphonique bi pour que askan wi bu jànkonteel ak ay jafe-jafe ñu mën a jokkoo ak kaaraange gi Ibrahima Jaba Xate Kédougou RFM. ak RFM kumpa jeex na. université Bambey ba fi mu ne nii seddagul seen diggante ñoom étudiants yi ak kilifa yi ndax dañoo jàpp ne nag kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yore njàng mi foofe muy waa rectorat ak ñi leen di jox waañ wi kenn ci defut liggéey bu baax foofe ba tax moo waral ñagas ñagas bi am tey jii janoowaat nañoo taskatu xibaar yi yëkkatiwaati kàddu Babacar Diouf. loolu tant que tooguñu waxtaan trouver du avancé. ni étudiants yi nekk ci université Alioune Diop bu Bambey yëpp ñoom ñoo booloo ne li nga xam ne moom lañ leen di teg dafa war a jeex. na moo tax te étudiant université Alioune Diop bu Bambey yëpp toog waxtaan c'est le moment que dafa doy dafa doy. yemuñu ca ñoom danoo tuumal administration bi ne ni muy yoree affaire pédagogique ak sociale yi dafa woyof. des étudiants ils sont omis des centaines d'étudiants parce que pourquoi parce que l'administration refuse de partager les états avec les représentants des étudiants qui voient leurs notes avec des erreurs avec des zéros qui ne parviennent pas à pouvoir les euh, rectifier. li ci gën a doy waar nag te jaaxal leen moo di ne nee nañ ñoom ñii di délégué yi de ñu ngi leen di xopp ci suuf. lu ci mënti xew tey ci alxames gi danoo wéer ngàndaay yi wante nag ñoom ñëpp nee nañu xeex bi dafay wéy fii ci Bombay Bombay RFM Babacar Diouf. université ba nag kilifa ya ñu ngi sàkku ci commission de discipline bi mu woolu étudiants yi nga xam ne ñooy indi yëngu-yëngu yi foofee daal di leen di dij toog ak ñoom seet lan moo ci war ñu daal ni nag euh, daan yi nga xam ni am na ñu ñu ko jota daan moom euh, mën naa am sax euh, mu tege ci ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom ñoom itam bokk nañ ci ñuy yëngal université bi donte nag am na foo xam ne mën nañoo dem jooytoo ko fa muy defi foofee recours